Euh, yaakaar naa bala ñoo tëj itam euh, patriote nga comme tout patriote comme tout sénégalais ndam li nga xamante ni bi am nañu ko sa mbokki sëriñ ñi nag wax nañ ci lu ne ah ci coupe bi naa ni foofu laay itam sa gisin ci équipe nationale ak ndam li nga xamante ni bi am na ak sa mbokku sëriñ ak côté mystique bi bouteille yu Égypte bi nga xamante ne bi ñii nii nañ lii la ñi nee nañu euh, wàllu mystique la ñeneen ñu technique la loolu yëpp yaakaar naa ne daal question la bu ma lay dëxëñ laata ñuy tëj waxtaan wi. waa xam nga Égypte moom ku ko xam ku fa dem man mi dem naa fa ay yoon yoon soo fa demee da nga xam ni réew mystique la kan bi moom indi nañ fi mystique soo xoolee football bi sax da ngay xam ne du équipe bu bu baax a baax noonu yëpp mais mystique bokk na ci lu leen dimbali ba ñu sore euh, la may lu may wax nag mbokk sëriñ li nga xamante dañuy waxtaan ci ci affaire équipe bi équipe bi comme Sénégalais yëpp ñoo ko bokk même soo soo soo seetee gis ni sax du indi ndam sax yow nga war a nëbb loolu nekk nekk di ñaan di ñaan yàlla ba yàlla may ñu ndaxte ñun ñëpp ñoo bokk loolu. su comme gis nga coupe bi ba mu ñëwee ñëpp a kontaan ñëpp a bëgg mhm. ñëpp a génn jubilé ku ko wax ak ku ko waxut ndax ndam li ñëpp ko bokk kon nañu arrêté yooyu noonu réew mi nekkul lépp loo gis rek mun koo wax lépp loo gis nga xam ni baaxu ci réew mi war nga ci mun a ñaan président loolu la waxoon ah ñu mun jàng alxuraan nañ jàng alxuraan ñi mun a ñaan nañ ñaan ñu mun leneen tamit nañ def leneen mhm. moo tax ñun boobu léegi defuñu benn sorti dañoo toog te suñu kurus li ñu xam di ko di ko ñaan su mas bi jotee li ñu war a génnee ci sarax génnee ko parce que loolu ñun ñoo ko moom réew mi réew mi kenn ëppale ñu fi dara keroog ndeysaan maa ngi taxaw ci biti gis benn xale di daw mu ne ma fu Sénégal féete mu ne ko foo jëm rek foo la Sénégal nekk ndax kontaan kon ñu ngi leen di félicité Lions yi ci ndam bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu indi ñu yeneen ndam te yaakaar nañ dañu indi yeneen ndam mm-hmm. ndaxte ay jàmbaar lañ ñu am xadar lañ ku gis seen euh, football xam ne ñuy jàmbaar lañ. kon daal d'accord ci ñi nga xam ne ñi leen di woowee ay sëriñ te ñu doon génn di dal ci équipe bi. non loolu du yoon loo moom waroo koo dal lii ñun ñoo ko moom loo moom soo gisee sax du ndam sax nga war koo nëbb askan bi mais chaque instant nga toog ci di wax ni ñii duñu indi ndam bi ñu ñëw fii nangam loolu du yoon lii ñun ñoo ko bokk soo gisee loolu yow ñaanal sax. ñaanal talala sa bopp sa sa borom loxo nga ñaan soo gisee ay sarax nga def ko mbir mi mën a ñëw ndax mbir mi su ñëwee ñun ñëppay kontaan ba mu ñëwee ñu ñëpp a kontaan amul kenn ko kontaanut boole ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci politique bi ñi nekk opposition ñi nekk pouvoir ñëpp la boole ah société société civile ñëpp la boole ñi nga xamante juboo woon juboo nañu ñi nga xamante dañoo taqale woon dajee nañu loolu dafa neex mm. kon yàlla na yàlla may ndam li jig ñu jig waa réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullah